seetaan ci 28 Pro TV ñu ngi am mbégte ànd ak yéen ba tey ci spécial tabaski bi comme ni ñu ko baax di def rek ñu ngi ñëw fii ci Mbacke Bawol Mbacke commune fekk fi nag euh, responsable bu mag kilifa bu mag euh, buy euh, madame mbay Ajaratu Nene Ndiaye di haute conseillère collectivité territoriale ñu fekk ko nag dañ koo bett nag ci këram waxtu bi nga waxtu dallu la nga xam ne boo ko daf ñu ko nangul sax ak lu nu lu nu dikk dikk ak lu mu xat-xat donte la bett nañ ko mais. mu ñëw nangul ñu ko parce que ñun nag moom ay partenaire leen ay doomam la ñu ah, jarot ne na Ndiaye madame Mbaye ñu ngi lay nuyu di la dalal ci 28 pro gannaaw ba la fekk see ci kër waaw si di tey nag dëgg yàlla bett na dee dëgg rek la yàlla bëgg ma fekke de ñi da maa bëgg a dal ci spécial tabaski waroon nga ma avertir avant may ñëw ma waajal ko ma sol li ma soloon ci mais man maa ko ma solu defaru bien vrai que dama feebar dama yor loxo dama am déboîtement wante teew dinaa la ko nangul ndax ñii nga àndal te xale yu ndaw ay caméraman di naa dis caméraman xale yu yaru lan xale yu ma jox cër lan xale yu ma fonk lan kon boo àndee moom ñëw sama kër bett ma fekk ma may noppalu leen spécial tabas tabaski ngay def mënuma mënuma laa gànt waaye na su ma sañoon booy ñëw ci man bu ëllëgee nga wax ma ko ma waajal ko ndax man nii du ma ko sama accoutrement du nii man sañ sañse rek laa bëgg lii du ma ko nangu ah, hmm? vraiment bett nga ma siidi mais euh, xaw mais xaw ma nu ma lay def situation oblige euh, gannaaw gannaaw nag li nga wax mhm. kenn am dara loo ci teg maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen jaajëfal di leen souhaiter souhaiter bienvenue merci Adja Néné Ndiaye madame Mbaye haute conseillère collectivité nañ yëngu ci social laataa muy dugg ci politique sociale bi lan la xamee woon nga dem te dem bi ci biir politique. Euh, lan moo la ci dugal ndax da bàyyi sociale bi léegi xam nga politiciens yi moom la ñu doy waar. Euh, di Diakhaté yow ku ma war a laaj loolu waroo caa bokk ndax yow xam nga ma bu baax. maag j'ai fait 29 ans bientôt 30 ans ñu fi indi naa fukki turandoo am naa fi ñaar fukki juróom-benn. fanweer ak juróom-benn fanweer ak juróom-ñaar la amoon kenn netti lu ma la man social politique social damaa fekk politique dafa ma fekk social si bi jaxati ndax bu yóbboo sax ma ni gannaaw yàlla ak yontu bi sama ñaari waaj sama barke borom kër social mu ma fi ma tàggal àgg tey ndax ci ma xam ndax yàlla nee na kenn du fay wax bàyyi jëf jëf ji ma doon jëf moom ma yàlla fay lii xam nga yow yàgg nga fee ñëw ndax politique man mosumaa ñor bu doon politique rek i bëggay mu baax ni yal na yàlla yokk leeram fi moo doon quartier général am bu doon politique rek kon dugg naa ca ngir jëmmam ndax jëflante naa ak man lu tax mu dugg ci politique te boole na ma ak Abdou Diouf boole na ma ak Ablaye Wade ànd ak Moussa Sakho mii Moussa Sakho boole na ma ak Ablaye Wade ànd ànd bu rafet ci politique saa yu jafe-jafe masaanam sama kër gi lañ koy lijjantee ma fexe ba loolu sedd guy ndax man ci politique ñor mosuma ko bëgg mosuma ko waaye ñi ma am ñëpp nag di samay nit ay politiciens lañu woon waaye nag ba ma fi yàlla tegeen ma yëngu social daf ma yàlla daf ma teggi ma daan fédéré nag may fédéré te duma ko mas a bàyyi tant boo gis ma gis xam ni am na rëq-rëq wala koñ bu ma gis mu am rëq ba ci jëkkër ak jabar ba ci ndey doom ba ci xarit ak xarit ba ci jàmbur ak jàmbur bu ma leen xamul sax danaa ci dox sama tànk dëkk sama alal def ko sama coono ba jàmm dellu si waat man loolu laa xam te loolu la ma sama waajur bu baax wa yare woon ndax sama papa daf ñu woon ko mën a dimbale te yàlla sax na nga ko dimbale ndax sama papa moo doon fa doxandéem bi bi ñu tabax lycée bi lycée Cheikh Amadou Bamba bu Diourbel sama fan fanweeri xale ña woon ci kër ga di élève mu jox leen ay néeg ñu dëkk di leen añal di leen reeral di leen ndékkil sama ñoom yaay di leen fóotal ñoom sax sama ñoom yaay ñoom la gënoon a considéré ci ñun ñi mu jur ku ci tilimoon boo setul sax wala ñu yeex laa photo da ngay dem boole laaj ko Ablaye Bane journaliste mm-hmm. nekkoon na sunu kër ak i moroomam mm-hmm. sama papa turandoo am na juróom-ñaar fukki turandoo juróom benn kon man sama papa la may yabe woon te ba muy dund loolu laay continuer sole social dama cee yàgg mm-hmm. ku ne xam ne Alaaji Sidi Maxtaar Ndiaye ci Njaaréem ku ne xam ne ci Demba Maam Ndiaye ci Njaaréem ñun social lañ juddoo ci lañ yaroo ci lañ màgg te ci lañu dund te loolu lañ sant bu ma ko noppee def damaa dee ndax boo xoolee Sidi li may joxe ci xarum tabaski boo xoolee sama doole may da ngay wax sa kii lu mu def ba am li mais fi mu nekk tabaski passé na démb lan tabaski ci topp épargne bi may épargne tabaski suba laa koy commencé ba déwénati ma ngir nga bëgg askan wi damay dem ci àll bi bu demee ba nga xam ne xel ni nawet a ngi bëgg a ñëw mois de février laay dem ci àll bi jënd ay xaru ñeenti junni yóbbu ko ci sàmm yi ñu duma ko sàmmal gana goon ren sax dafa de moo tax ren dama bari lu dee moo tax ma yem ci ñeent fukk xar juróom mais démb daaw jox naa juróom benn fukk xar ak ñeent ndax dafa am yu dee ndax loolu fi amoon ma sant ko sunu borom bi ma defee loolu jënd ñeent junni ñeent junni dafa yomb ci man su ko defee ma sàmmalu ko ci àll bi jël ku ma koy sàmmal di ko jàppale bu demee ba tabaski des juróom-ñetti fan ñu indil ma leen képp koo xam ne ci askan wi njot naa ne yow mi mënoo am xarum tabaski ma jox la waaye nag sii di man ko man du ma dimbale ko am ba pare damay seetu amul ma jàppale leen ñi am nag ba pare bu seen doole matewul mën naa leen a yokk doole appuye leen ci la ma yàlla jox ndax yàlla mayewul dara day day able mm-hmm. te yàlla mënoon na maa may mënoon na maa xañ jox ñeneen ma di leen seeti kon bu yàlla xañee ñeneen jox ma xaw ma la yàlla xañ a doomu aadama yooyu jox ma ma ne ko kon lu baax rek laa ci war a des te lu baax rek laa ci fas yéenee def ñii ma àndal ci politique bi loo xam am naa ko te ñu waroon am cër te amuñu te xaw ma leen yàlla xañ a cër jox ma cër lu ma am danaa ko boole bokk ak ñoom te lu ma am te noonu ma ko ñoom yàlla bu ma ko yàlla may man Sidi loolu laay dund loolu laay gëm te loolu laay doxalee ren jii li ma dépensé ci tabaski gi du ko wax man plus de 4 millions et ak des surtout sur des preuves raison pour laquelle am na ay journalistes yoo xam dañ fay ñëwoon dégg ni madame Mbaye ngay séddale madame Mbaye bokk ci ñi nga xam ni dañuy joxe ba pare di fala fala man du ma ko def danoo dégg rek dëkk ba ñëw bi ñëwee gis nañ ko enveloppe bi ma doon joxe gis nañ ko mais amee mais amee mais amee sama kër gi fees dell may jox ñu teg seen bët kon man du ma def ma dara dara dara dara ngir gis fayu yàlla moo gën mbindee fal fayu yàlla moo gën bu min defal man soxla ku ma gërëm ngërëmal yàlla laa soxla ngërëmal yonent bi ngërëm sëriñ Tuubaa sama ngërëmal ñaari waaju ak sama borom kër te sama ñaari waaju gërëm nan nan ma ba dee ndax à 18 ans laa yóbbu sama yaay màkk sama papa moom sëñ Fallou ko yóbbu woon màkk sëñ mo sëñ Fallou ne sëñ Modou Bousso yóbbu ko màkk ba moo war sama juróom-ñaari yoon papa màkk ma ne ko naa ma kon nag sama papa ba mu la mu daan def te wàññiwu ko dara tey laa ko gën mën a def ba kër ak mooy wuti sama borom jërëjëf social bi yaatu nga ci wax dëgg yàlla xam nañ ci lu bëri bëri bëri tax ci nañu fekk nañ ci am boo xam ne maanaam dund nañ ko ak yow yàlla di def di def ngay dox di dox di def ba tàbbi ci biir langue politique bi eh, ci loolee am lu bees lu ñëw di haut conseil eh, de collectivité territoriale ñu bokk ci bokk ci nga xam ne tàbb na leen tey eh, yaa ngi yore ndombal tànk boobu léegi loolu nit ñi dafa mel ne dañ koo umpale ba léegi xamuñu moom mooy lan est-ce que yéen am ngeen loo xam ne maanaam moom ngeen doxalee askan wi pour ñu mën a xam li leen fa lal gis nga Sidi euh, euh, maa ngi rend grace à Dieu encore di santaat yàlla di julliwaat Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di di santaat sëñ Fallou mi nga xam ne moo yor sama wasila di santaat sëñ Sallou mi yor sama wasila borom kër waaye maa ngi remercier le président Cissé Lo parce que à maintes reprises ñëw na sama kër seet sama jëkkër ak ñeneen délégation ñeneen pour ma dugg ci politique sama jëkkër jëkkër bañ sama jëkkër bañ ma bañ ndax politique dafa doy waar wante nag président Cissé Lo ku yeewu la découragé wul toujours mi ngi woote mu ngi ñëw ba bi mu mujjee ñëw Mor Mor Ndiaye la fa yónni ak Gabane Touré fekk Mor Ngom recevoir na sama jëkkër ci présidence ni ko nangu jàppale nga xam ne moom ko amoon yéene la pour ñu jàppaleen waaye loolu sotti ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen bi mu yàlla dogalee muy dugg di génn dugg di ba dugal ma ci politique bi li tax man damaa gore man président Macky Sall du ma ko masa woon gannaaw Cissé Lo du ma ko masa woon gannaaw ndax man gor piir laa du waxu politique man ku ma lebal kër ma fay la guddi man madame Mbaye sant naa yàlla bu baax ndax sama jëkkër man dong la am te bëgg na ma bëgg naa ko te lu mu am jox ma te samay doom màgg na nam ma dara kon man du ma wax waxu politik du ma wax waxu politique man man ni nit ñi politique man xaw ma ko moo tax ma den leen wax du ma nangoo bu dugg ci politique daanaa ko wax Ibba Gueye nee naa la politique dong kon Ibba Gueye laa koy defal ndax Ibba Gueye yow ma ni mention spéciale à Ibba Gueye mais taxul ma politique boole na ma ak Ablaye Diack boole na ma ak Abdou Diouf Ousmane Tanor boo ko xamee ci bëggee laa ko xamee mais defuma politique Lamine Loum sama càmmiñ la defal na ma lu ne ci PS PDS ku ne am naa du ma lim ndax ku lim ju ndax mën ngaa fàtte Kébémer mais yàlla dafa dogal ndomba tànk 14 millions de sénégalais bu boo tekkee ndomba tànk ci nguur Macky Sall laa ko takke te Cissé Lo ma ci dugal kon dama leen di delloo njukkal jàppale leen président Macky Sall du ma ko noppee ma sa jàppale ci politique bu ko ñëpp yee ma ànd ak moom deuxième mandat dong laa ko ñaan Sidi Diakhaté xanaa xamoo gañ ñun gañ fii sama gañ bu mujj bi ci élection. mais bala muy ñëw ci gañ bi. non may ma non non Sidi Diakhaté non da ma kase da nga ma laal danga nga wokk sama góom. waaw xam dama laa bëgg wax benn kàddu rek. Euh, euh, au conseil des collectivités territoriales bi Macky Sall président Macky Sall def. nit ñi war nañ koo xam parce que li tax ñu di ko xam xam nga mooy lan hmm. ñun. yamuñoo ak assemblée ndax assemblée mooy première institution waaye bi nekk deuxième institution mu teg fa Ousmane Tanor Dieng suñu président bu baax bi nga xam ni moom di wax dëgg yàlla jiitaluñ ko rek mu fakk sa président Macky sal te man ku ñeme dëgg laa dama dem dama dem euh, plénière fële session yi damay dem te damay déglu Ousmane Tanor di wax pour jàppale président Macky sal ndax président Macky sal dafa xam ne mi ngi liggéey mu jàppale ko ma dégg ay communication te xam ne leen loo xam bu ko waxoon danaa ko tontu ndax damaa gis président di liggéey gis su au conseil des collectivités territoriales Ousmane Tanor Dieng invité na fa ministre bu nekk invité na fa directeur bu nekk pour ñu wax ko suñuy doléance suñuy dëkk mu mën nu cee mën a jàppale pour que dëkk boobu soxla gis nga Mbàkke gi ñuy wax des na tuuti fan yu néew du ma ni tey la du ma ni suba la waaye li wóor te mooy président mi ngi ci xelam te dana ko defar te bi defee na Mbàkke Mbàkke dina dégg dégg eskay ndax dama cee am lu ma leer man du ma wax lu ma xam au conseil des collectivités territoriales pour moo tax ñu dig leen ko di ko xamal moo tax ñu créé ko pour di ñu xamal ñuy jooytu seen xam seen i doléance di leen ko rendre ñu mën koo def ci ci réew mi satisfaction ci li ngeen leen rendre askan wi nga am satisfaction ndax Mbàkke fi mu nekk léegi assurance mi ngi ñëw ah ci au conseil des collectivités territoriales leen ko jooyee Azurut mhm. Mbàkke boo gënee euh, stade bi ñuy wax fan yu néew bi ko jeunes yi jooy wax nañ ko conseil au conseil de collectivités territoriales devant des des d' autres conseillers ñu ngi ñu dina sotti léegi Mbàkke espace vert wax nañ ko conseil conseil euh, collectivité au conseil de collectivités territoriales espace jeune wax nañ ko au conseil des collectivités territoriales ak bu hôpital bii nga xam mbàkkee nga koy jooy wax nañ ko au conseil des collectivités yooyu yëpp président Tanor Dieng ak commission bi def nañ rapport jébbal na ko président de la République ba c'est en bonne voie euh, moom la moo tax ñu bëree bari est que loolu du ñëw après 2019 li ma la wax nee naa la buñ ko commencé wul jamono yi ñu nekk li wóor te wóor mooy premier mois du 2019 dina démarrer te avant booba sax dina démarrer ndax stade bi man maa wax lu leer toogal man nag damaa doon koo xam ni politicien boo xam ne damay segg parce que bëgguma ñuna ne madame Mbaye fi wax lii te bëgguma ëllëg ak si biir ñu ne madame Mbaye damaa yor samay doom ñuy samay nawle ma jur leen te bëgguma bu ëllëgee ñu ne ko seen yaay judul wax dëgg jaa ne moo tax toujours sama politique boo ma xoolee fépp fu ma dem tournée ak képp ku ma décroché ji ak képp koo xam ne seeti naa pour nga ñëw jàppale président Macky Sall boo ma rendre say doléances du ma diggee dama lay wax la jaadu wax la la ma man wax la loo xam ne bu ëllëgee boo ko dégg duna madame Mbaye waxoon lii man noonu laay politiquer alors léegi mu mel ne tamit am na loo xam ne waa Mbàkke ñu ngi leen koy ŋàññee yéen responsable APR yi nee nañ ñu bëri gis nañ ko ci réseaux sociaux yi gis nañ ko dégg nañ ko tamit par communiqué ñu def ko ñu ne ñoom soxlawul ay audience yu ba yi ngeen dem ci président de la république li ñu soxla moom mooy ay réalisation yoo xam ne ñu inauguré nañ ko balaa yàgg dara te boobu ba léegi gis nañ ne yéen audience rek moo leen soxal loolu mën nañu ñu ci indil ay leeral nga ñoo bu leen neexee sa wax loolu xam nga kenn ku ci nekk li nekk sa xel rek ngay wax ak lii la doy waaye li ma mën a wóor moom des sources sûres président de la république amul benn région boo xam ne nekk nga ci Sénégal te région de Diourbel gënu koo ñor wax maag rawatina du département Mbacké danoo yàkkamti rek mais président xelam ak xalaatam ak njàngatam saa yu xëyee suba loolu lay yeewoo saa yu tëddee guddi loolu lay fanaanoo pour que Mbacké département Mbacké gis seen bopp ci ci ci ci waaw loolu mooy de loolu lool mooy xalaatam. mais yéen waa Mbacke kon lan mooy seen problème yéen responsable yi nekk fii euh, gis nañ ne maanaam élection yooyu yëpp euh, da ngeen conseil bi nga xam ne moom ngeen yore yeneen yooyu nag lan mooy problème bi déggoo dafa amut wala doylante moom moo amut wala ku ci nekk maanaam sa bopp rek ngay lijjal di bàyyi boo xam ne yéen a bokk parti. Euh, gis nga cat bu rayul semmal Sidi Diakhaté. département Mbacké élection ba njëkk a perte ku nekk xam na ni mu demee na mu demee yow xam nga ko man xam naa télévision laa nekk ña ko indi woon it xam nañu ba cat buruxlu ci ba loolu ñu ñàkk ko muy élection maire au conseil des collectivités territoriales man mi lan ta bon te man bañ naa ko ba képp ku ma dem ci conseil mu na bu jarul woon ngay ñëw bu campagne man sëñ Sidi Mbacke ak Lamine Top bu Sadio Lamine Top am na àll sëñ Sidi Mbacke sëñ sëñ Sidi Maxtaar ko tabb man ma madame Mbaye mi am naa ñëpp nag damay tàllal sama loxo ca kaw ma kenn xaar ma yàlla raison pour la laquelle képp ku ma dem ku nekk campagne dafa ko jël woon nga ñëw yow dinañ la woteel te loolu sant yàlla la nu ngeen waajale présidentiel da nga may ba yow yaa ngi may jàmbat ne ma da non non non bu ma desee mi da ngay yokk ndax da nga maa bett ñëw tey dinaa la wax ku la bett man la tey dinaa la wax ah, bu ngeen yàkkamtee ngeen dem parce que man yéen ma soxla man soxlawu ma leen yéen a ñëw léegi nga cat dama lay dugal léegi lii suñu cat mooy Mbàkke ci boppam nañ gën a boole suñu bopp xëy na ñàkk élection yàlla moo koy def parce que bi ma demee élection damaa gañ te ña ma àndaloon gañ wax dëgg yàlla dañu maa jàppale ñu ànd campagne gañ bu dee dëgg la yàlla damaa bëgg nañ boole woon ànd campagne gañ ñu boole waat ànd campagne gañ dégg naa ci waxi nit du ma tudd tour taman sele laa nekk man du ma yàq kenn waaye campagne élection présidentielle képp koo xam ne wax na ni APR ko war sanction waxoo lu am man je l'assume man madame Mbaye mhm. ndax président du ma tabb tabb keneen tabb keneen ñu di ko war sanction amul 24 heures vingt 24 dañ koo campagne 24 heures vingt 24 dañ koo campagne bu mu jeex takk lu set wicc ma ñàkk sama àll raison pour laquelle keroog ba ñàkkee élection yi mu ne ko naam boobu sama doom yëpp mu des tension 18 laa am 18 ma continué fii toog ma demaat ba am tension 20 sama doom ñoo woo seen papa ne na si daggale sama papa yaay bi mu ñoo Espagne keroog ba may dem Espagne dama doon fat ndax am choc ndax damaa liggéey ba dee te aw ma la ma nit nag boo maslaa loog nit ñi jàppantewoog nit ñi teyewoo nit ñi ba élection ñëw nga ngay def nga nga nga nga bëgg a jóg mun na ko naam mun na ko nit ñi ci boppam bu la voyer sanction kenn defulu ko kenn defu ko président yow lan ko def waaye élection législative élection présidentielle élection ndum élection euh, euh, dama campagne te ba may campagne man ko man kenn taxul may campagne président de la république mi ma jox ndoom ba tànk nga xam ne bu ma ko sanctionné ma sanctionné sans bopp laa sanctionné moo taxoon may campagne mais nit ñi danoo campagne ba dagg nit ñi danoo campagne ba dee Moustapha Cissé Lo ñàkk na alalam ci campagne man may waxal yàlla Galo Ba ñàkk na camp alalam ci campagne bi man ñàkk naa sama alal ci campagne bi ma ñëpp ñëpp responsable politique bu nekk jóg nga bu nekk ci département bi campagne pour président de la république gagné yàlla nag mooy gañ ak it règlement de compte réglement de compte bi nag du ma ni diw la du ma ni Masamba la du ma ni Mademba la seen biir ñan ñoo xam na tax ñu sanctionné leen waaye sanctionné wun Macky Sall président Macky Sall kenn du ko sanctionné kenn sanctionné ko ndax ku président sanctionné président Macky Sall sa bopp nga sanctionné te ñu président Macky Sall mooy ñun te man président Macky Sall dama ci campagne ba dee ndax moo ma fal tey faluma bu may solu ak sama njaboot faluma lu sama njaboot di donn faluma may lekk bay askan wi faluma it lu may tiitaroo président Macky Sall daf ma fal man madame mbay ngir may jàppale askan wi ma mën koo jàppale ci li nga xam ne moom la bëgg bu ëllëgee mu am ci ndam kon nag lii nga xam ne moom naa fal may fay weer di bànneexu lépp loo xam ne defaluma ko ci askanu jàppale ma ba mu am ci ne dama koy layoo bis bañ te yàlla dana ma ko laaj te du ma ko nangu loo xam ne bu ma dee yàlla laaj ma ko man madame Mbaye du ma ko may kenn ndax bu neexoon yàlla sama wax ji du àgg ndax yàlla teral na ma démb te politique ma kon nag euh, Sidi Diakhaté li ma lay xamal mooy dama bëgg ñu xam madame Mbaye kan madame mbay du fimis madame mbay du rambaaj madame mbay du wàlli baña madame mbay du tendance madame Mbaye du clan madame Mbaye kenn ko ñor ñaara ko ñoroon ci àdduna muy sama nday ak sama baay bi ci dolli sama borom kër amatuma nday amatuma baay jëkkër laa am muy Serigne Bay mi ngi ci kaw di ma déglu ki ci des mooy président Macky Sall mi ma takkal ndomba tànk te bu moo ko noppee bàyyi mu ne ko naa ma ne ko damaa bàyyi politique te moom laay àndal ba mu am deuxième mandat dina ma jaral jaay sama mbubb jaay sama daal jaay sama sër du ma yendal du ma fanaana du ma jóg ndax ka tax ma dugg ci politique bi mu boole maag mu président Cissé taxoon mu tànn ma du ko ci rusloo te dinaa ci ànd ak moom liggéey ba am deuxième manda Gallo Ba mii tey président Cissé Lo moo boole moom ma àndal ak moom geen liggéey xam nga kon kuy tendance doo boole ay nit nan bàyyi wax ji te ñun ñëpp ñu bokk nday bokk bàyyi maa ngi rendre ñëpp di tàllal ñëpp loxo muy le maire de Mbacké président Abdou Mbacké Ndaw di tànnal loxo Angoloma di tànnal loxo Baye Mor Ndiaye di tànnal loxo Baye Màgga ndax ñun ñëpp sax benn lañu di tànnal loxo Mor An Gueye di ko tàllal Gumba Amad di ko tàllal Baara Gaye di ko tàllal euh, numtu Kati sise di ko tàllal musa Sakho di ko tàllal aussi kaay yow bul dem kaay pare guma di ko tàllal Moussa Sakho di ko tàllalit euh, Ablaye Diombaxo bu ma juumee nag ñëpp nanu ma baal àq nan ñëw ñun ñëpp ñu bokk joxante loxo ak waa tuba ak departement bi yëpp ànd doon benn yëkkateendoo dóorandoo tegandoo ak ñoom Abdoulaye Bale ak ñëpp Abdoulaye Sadaga ñun ñëpp ñu doon benn fexe ba président euh, mak Sall am deuxième mandat leneen lu ñu def lu dul lii dañuy nax suñu bopp président Macky Sall wàccoo nag ñun boo gisee autoroute Ila Touba man jëlee naa ay autoroute Ila Touba ndax loolu deuxième la xaw man lan laay wax dund bi nan wax ci dund bi réalisation yi c'est bien beau mais kenn ku ci nekk boo suuru doo mën a wax nan wax ci dund bi ak lumière yi mu fi indi wax ndox mi mu yokk loolu loolu am solo wax couverture maladie universelle wax wax bourse familiale yi réalisation yi ñëpp a ko teg seen ba télé bi fenn lu nu lu nu fàng kenn du ko laam-laamee président Macky Sall wàññi na ceeb depuis 2012 ak léegi ceeb yokkul président Macky Sall wàññi na suukar depuis 2012 ak léegi kenn yokkul. président mak Sall wàññi na courant bi depuis 2012 ak léegi kenn kuy kamatun xale yi dañuy jàng soon ni leen neexe ngay liir liir lu la neexe ngay deful say étude de projet ñu financé DER baa ngi nii barki dem boo Ndiaye 30 million milliards 10 milliards dugg na des na beneen beneen 10 milliards bu war a dugg desaat na beneen 10 muy 30 milliards loolu mosu fee am. barki dem ba financement femme yaa ngi nii mosu fee am xam nga man damaa bëgg nit ñi ñu ñuy waxante dëgg. dama bëgg kuy liggéey dañuy xam ne di nga liggéey waaw góor da yokk ngóor a président Macky Sall xam nga nun war a def for ndënd yi defar junjung yi laxasaar xalam yi di ko di wax président Macky Sall gongo jërë ngeen jëf. Euh, léegi nag ñu jeexalee ak euh, tabaski bi mbay mbay euh, sax laa la mën a sant xanaa tabaski gu neex nag xam nga ni tabaski gu neex la mhm. fekke rek dooy na njàmbat fekke moo waral njàmbat. buñ fekke woon duñu jàmbat am na ñoo xam ne fekkewuñ ko rew mi dafa neex président Macky saal neexal na ko ndax monsieur ngay mbay ngi ci kaw man rek la bëgg moom rek laa bëgg te takkul jabar ma ngi koy wàjjal di ko defal muy muy kontaan lool dong dafa neex rawatina ndoog boobu président Macky Sall takkale ndoom ba tàng bu gëstoo di ma wax honorable eh. sama xol gën a neex. kon tabaski neex na moo dàq tabaski lool li jër ngeen jëf. alors 28 Pro boo xam dafa ñëw fas yéene ànd ak yéen euh, naka ngeen fas xanaa gëm nag 28 Pro euh, Pro moo la tudd. 28 Pro. 28 Pro dama koo gëm gis nga boo gisee ma nangu leen ni damaa xam ne ay xale ngeen yu soog a jóg bu ma leen ko xañee rek mel ne xañ naa ko caacoo may sama doom kon du ma leen ko mas a xaj parce que xale buy soog a jóg da nga koy jàppale jàppale xale buy soog a jóg dafa am solo ndax loolu mooy njariñu askan te loolu mooy njariñu réew mi kon nag 28 pro dama leen di ñaanal yàlla na ngeen dugg ba am seen télévision bopp ak seeni rajo bopp parce que lii ngeen def am na solo ñoo dugg rek dana mas a ñëw kon li ma leen di ñaanal mooy parce que yéen yi fi toog ñëpp samay doom ngeen si danoo yàgg li ma la wax léegi nit ci téléphone ci bi nga ñëwee ma mën ko noom taala mun ko ma mën ko di ngeen ma defar si moom la xamee yaa 30 sama kër gi fi nga fi nga dëkkoon moo tax gànt lu ma la tey mais keneen ku ñëwoon tey ji wax ma lu mel ni du ma nangu parce que ni nga ma fekk sax sii di baaxu yaa nga fekk loxo buy metti yaa nga fekk ma toog sama saal di naan attaaya nga xaar solowu ma sañse wu ma nga ñëw fekk ma ni ma nangu loxo yow loo ma deseel yoo xam nga social rek nga ma xam ndax social tax ma xam la bilaay kon sii di man loo rek laa xam jërëjëf jërëjëf yi bu nekkoon Adjaratou Ndémé Ndiaye madame Mbaye haute conseillère des moom nag nga xam ne nag responsable la bu mag yëngatu ci social lañ ko gënoon xam ne ba tey mu nekk nag ñuy yëngu ci langue politique waaye bàyyiwul social bi comme ni mu leen ko waxee rek loolu da ko gën a xam ci moom di dajee beneen yoon ci yeneen jotaay